Euh, dañuy wax ne Sénégal mooy réew boo xamante ne moo gën a métti évoluer gën a métti liggéey rawatina ci jigéen il faut avoir euh, les épaules très très très très solides pour mën a résister ci yenn yi ndax toog sa ruq rek nekk sa jàpp sa ñàmb du tere ñu fekk la ci ruq ba génnee la fa ndax euh, loo waxadi waxadi boo gisee <laughs> nen ne nen a ngi liñ naan wax bu feebaree nopp ba koy dégg war a wér dafa am loo xamante ne rafetul te rafetlu ma ko benn yoon ndax loolu du ñun Sénégal dëkku valeur la dëkku lu baax la lu baax la ñu xam bu nit nag wax waxam ba pare bëgg a dédiir boppam bëgg maa utiliser def ma nagu sarax déedéet sama yaay jurul boobu doom non non du ma wax tout le temps nag waaye bu wax jotee dangay wax des fois injustice yi tegu ci sama kaw ak frustration yi métti na mais terewul damay noppi ànd ak sunu borom. ndax nit lu mu dund rek sunu borom la neex may sant nak bu baax may sant bu baax di julli ci sangu-sang rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. di wax ne ragal yab yalla la ragal du jéggi ray jolof-jolof du ragal Dedet, at mi ma juddu amu ragal mais du togn duma du kenn kenn kenn wéru koor lañu nekk détails yi may gis ci net bi mu métti ma mënumaa bokk ci gaam boobu déedéet dafa di bu ñu la waxalee loo xam ne rafetul te c'est pas la première fois te comprendre lu tax maa ngi yemoon exactement euh, fi ma naan dafa ñëw toog ci plateau bi nuyu ñëpp tëb ma ku ne mu tagg la waaye baax na moom moom nuyoom terewul ci ñàkk nuyoo boobu yëpp man en tant que professionnel ndax nit munoon nga ne boo toogee nit ñëw ci plateau nuyu ñëpp tëb la euh, booy posé mun nga ko bañ a posé déedéet man mom sama bop taxuma fa tok mom taxuma fa tok sénégalais yi nek bitim rew ak ñi nek biir rew di sétane dama am devoir envers ñom donc suma togué ci plateau luma way mëna def du fofu lay régler sama problème ndax ñew nga nuyu ñepp tepp ma lolu rek nek na manque de manque de respect bo xamné notoire la mënu lo wax lan la la nit def nga tok ci biir plateau bi di wax di walé man nekuma ci ay walé ak ay comédie di xas nit ñi di defante je ne suis pas dans sa yooyu nag da ma ci dafa na ci génne gaam yooyu nga nekk nekkuma ci gaam yooyu te bul ma tooñ yow yaa toog ne dootoo nekk candidat député à la diaspora ma relayer information bi xanaa yow mat nga yàpp waa tem bi nitu tey la Moussa ñaa waa nitu tey la parce que nag tooñ weesuwul nga topp nit di ko attaqué muy ignoré ngay attaqué muy ignoré nga ñam mu neex rek nga ne xaaral ma continuer

man sama yoon nekkul ci ay rôle député lan la ñu def lu ñu deful dénigré wu ma kenn dama équilibré information bi dama ni ñun de am nañu député diaspora trois ñoo ci nekk opposition euh, ma limaale ko ci moom daal di ne ñoom de am na ñu leen di ŋàññ di wax ne seen liggéey xamuñu lan la waaye man de duma bokk ci ñuy ŋàññ ndax loolu du sama rol sama avis ça importe peu ma ne am na ay nit yu jóg bëgg a nekk député waye nak ñooñu ay la yéwén bëgg nekk député bu mu tax ñuy ŋàññi liggéeyu ñi fi nekkon man dama équilibrer information bi nak limay wax dama ko jang duma tok ci télé di la tuddu naan la yaane ne nekk député euh, diaspora té waxuloo ko lu may wax day am preuve té dina ko tek fi kanta nag nga bëgg wax né man ma dugg ci liggéeyu député de la diaspora ce n'est pas vrai li nga wax du dëgg waxo dëgg waro tok tamit naan dama lay jëw parce que waxo dëgg ce n'est pas vrai Sénégal nak bo fi né patt ñu bëggaté la loo mën a doon nekkal député ragaluma la parce que tooñu ma la fi ma ñem fi ma jëm ñeme naa ko yàlla rek moom moo fi nekk mais jigéen du toog ci plateau di yàq jigéen boo xam ne defu la dara di mère de famille di dund ak quiétude di ñafe di liggéey boobu ba léegi ci diaspora bi fi ma yemoon exactement mooy fi ma fi nga toogee ci plateau bi laay ñëw da nga def ay acte yoo xamante ne acte yu àdduna bi yëpp mën a gisaat la ndax bu ñu demee xool ko gis ko jëf dafay rafet wax dafay rafet ndax nettali ba ëllëg nit ku la tooñul bu ko tooñ nit ku la deful bul ko def ku la waxul bu ko wax dangaa ñëw ci palaato nuyu ñëpp tëb ma tagg ku ne ma jël sama tànk teg ci ne amul ay la yowén amul problème terewul li ma la bëgg a laaj dama la koo laaj nga toogaat ba ci diggu palaato bi ne man warumaa def diaspora parce que dëkkuma fi nga xam ne mooy itali fuy Italie fi ma dem yow moomu demoo fa fi ma dugg dem duggoo fa ba may tukki tukki woo te man xëccoowuma ay immigré pour di ci am dara nee naa la président Abdoulaye Wade yal yalla yàlla ay fanam may ko gudd fan ak wir gor gu tedd gu bax googu moma xol ci sama liggey bu rafet recevoir ma ne ma lan nga bëgg ma defal la maniko bëgguma dara deureum jëlew ma ci ablay wad ñu xey titre ma ci journaux yi wane ma journal télévisé 20 h ñaari deureum jëlew mako ci ablay wad te boba ku fa dem valise nga fay génné kon ki baye ablay wad président wola laaj la nga ne ko bëggo dara koku namo ay lan moy lan mooy ay dangay dem ñu lay may saag ak dàll yow la saag ak dàll tiital man na fi benn immigré génn ne daf may jox xaalis wala daf may may damay liggéey te yàlla tax bëgg li may def nag ñu bàyyi ma ma exercer sama liggéey dama koy def ñu ñàkk maa bàyyi dama koy def taxawal fi immigré yi nag muy guddi muy naaj muy bëccëg ma di daj lu nekk kenn fayu ma kenn fayu ma may liggéey nag sonn ci ku ma woo ma wuyu la sujet bu ma war a wax wax ko taxawu leen nag ku bëgg a sa euh, euh, yëf ma jàllale lako gratuitement parce que dañuma denk liggéey ma diko def ak li nga ne momo di sama quiétude bop and ci éthique ak déontologie li ngay wax ay waxu picc la ay waxu kasaw-kasaw la taxawul ay débaawu ba étage la ay jëw yow ya xam luy jëw man jëwuma kuy wax ci micro do jëw ya ki nga né daf la man du tey laa mës a déjouer ay calan ki ay ay plan nekkuma ci yooyu ci dëgg laa nekk ku ne ci dëgg doo ragal fi nga jëm defuma la dara arrêtéel acharnement bi ngay def ci man foo génnee wax ma génn wax ëppoo ma làmmiñ dàqoo maa wax bàyyi li ngay def dem toog ci plateau tele ñu dëkk la micro ngay xas gor di xas doomu jàmbur di tuumaal nit man duma ma jëwkat sama juróom-ñaari maam du ñu jëw xaw ma luy jëw sama ngor duma ko jëndee saak Buma don jël sama ngor di jëndé ay saak kon duma tok ci télé bi wara liggéey duñ ma bayima liggéey gennuma jaayuma sama ngor motax sumay genn di liggéey taxi lay jël sama otopan. pan buma jaayon sama ngor suba suba wala tay tay xamna fiñi fi auto man doxuma ci matériel alalu àdduna euh, yóbbalu ma fëkk munumaa yóbbu nak limu li def lay xéñ wax bu fébaré nop ba koy dégg wara wër xawma nak lan la moo tax ngay acharné wu ci man xaw ma lan moo ko waral mais li nga xam ne moo wóor te wóor man du ma ragal fi ma jaar bëri na fi ma jaar bëri na lool bi may toog ci télé bi nag bi àll bi ne séng kenn ñemewu fi maa xuus jàll nag bi ma jàllee ñépp ni a ah, alors kii warul génn fii kii boppam bi nii la mel kii leneen li ah ma muñ ko nag ndax man maa choisir bëgg a génn tele ñama daan woo di ma xas musuma leen a tontu ndax tontu du sama métier mais bu tontu jotee yenn saa yi da ngay wax parce que jigéen du toog fee di màgget magum jëmm boo xamante ne yow xam nga lu ne dem nga fu ne yore sa micro toog fu ñu ne nga toog fa rek di xas doomu aadama di xas gorte kooku defu la dara yow yaa ne woon doo présenté wooti nekk député diaspora man ma def relayer information bi kese ma ànd ak sama ngoro ak sama dignité ku ñaanul président d la république mu ne la bëgg ma defal la parce que damaa gis ni ngay waxee kan moo la ko jàngal euh, Fatou Gueye bul ma waxati bul tontu loolu laay bañ a dégg xam nga lu tax xam nga lu tax nga ne ma ne la bul tontu xam naa ne lu baax ngeen bëgg jàmm jooju ngeen bëgg maa la ko gën a bëgg maa la gën a bëgg jàmm jooju mais benn instant nit du toog di la jiiñ naan la ay danga dem di ko jëw loolu dafa ñaaw loolu dafa ñaaw man jëwuma kenn man du ma jëw mu ne dañ ko ko daggal jox ko ko na jël liñ ko daggal jox ko ko mu teg ko man dinaa leen dugalal léegi vidéo bi muy waxee ne moom dootul présenté wu maam jaara faam laay waxal yow mi laaj ku may waxal dama ne woon du ma tudd turam mais yow mi may laaj moom laay waxal parce que moo ma wax baat la ak tontu kuy bañ ko la tontu doo wax xamal li ngay wax mais bul xam lu ñu lay tontu joxewu ma moom dara nee na keroog la ñu mus a toog du keroog la ñu mus a toog daje nañu man ak yow leeral dafa baax daje nañu man ak yow bi faal diaspora di joxe li nga xam ne moom moo di trophée diaspora fi nga xam ne mooy méridien mais bi ma la nuyoo à nga ma fay danga maa sewal neexuma la yàllaa koy def bugguloo ma mais nag yemal ci loolu ndax kenn mënuta tëb rek ne yow na la ñëpp bëgg neexuma la d'accord c'est bon mais yow joxeel raison bi tax nga may attaqué fu ne amul yak ñi nga àndal ak ñala ko daggal yeen ñep ci pot fi ku ne mën nga yaru waye ku ne mën nga nak bu wax joté nga wax ma ngi leen di jéggalu nak ci baat bi ma yëkëti ndax wu leen ma lool mais Sénégal dafa metti dañuy lay xol ba ci yag rek bëgg la gor temps yooyu yëpp waxatu waxatuloon samay wax parce que gisunu ma ci télé buñ la gisé nga commencé genn di defar ba mu baax di wax rek ciow li jog coalition la ñuy def petit coalition ña lay reetaan ak ña lay suuri ñay wane ne dañ laa bëgg ñoom ñëpp a yem man loolu yëngalu ma xam nga lu ma intéressé mission biñ ma dénk ma war ko accomplir muy doomu Sénégal yi nekk bitim réew may liggéey ci gratuite nag man nammuma ay saak man may saak may daal man du ma nit ku matérialiste déggoo li ma la wax yow oto ba ma Youssou Ndour jox dafa paan mi ngi fii léegi mu def ñaari at taxi laay jël aw ma ci complexe aw ma ci ragal aw ma sens interdit sama koñ bi ñëpp laa melal ne mu roog soow samay dàllu carax laay sol génn dem ci ñoom di doxantu di wax waxtaan e ba may siiw kenn laa ah, wala ñi siiw bëriwul ba may génn ñëpp di ma seetaan du tey booba foo ne woon bi ma Ablaye Wade di woo naan ma loo bëgg ma defal la ko foo ne woon ana nga woon ah? fo nekkon ken gisulo won dañ lay xoqatal pour nga ragal delu ginnaw pour nga meuna déstabiliser wu man ken munuma déstabiliser yow ba pare tok ci plateau bi bi mu défé loolu ba pare dajé nañu nga sewal ma benn ba tok ci plateau def saak dal moy lan ay waxi dof ma toog ci plateau ba ba ngay jóg loo wax man warumaa wax ci diaspora man sama tànt sama jabaru pap moo doon liggéeyee lof Lufthansa compagnie allemande la bi may dugg avion ak di voyager du tey te loolu du ndam ndax voyage mooy lan bu ma neexoon dem dëkk bitim réew am naa këyit gi am naa visa bi musumaa def Amérique gi may dem sax musuma faa def un mois bu mat ndax bëgg sama Sénégal bëgg sama réew bëgg taxaw nak participer nak Sénégal kenn moomu ko lo ma doon sénégalaise le Sénégal appartient à tout le monde kenn duma ci génne amna way wo woo xamante duko dindi ci audiovisuel ñu may def lu né nak ma nopi waye bëss day jox nak nga wax parce que yëf yi day bëgg ëpp voilà bamay tukki du tay kon yow du yow ya am crédibilité pour wax ko wara wax ci diaspora bi wala deet ñi am crédibilité moy wa diaspora ak wa Sénégal té ñoñu jox nañ ma bop kon du yow sey mbir nak ma ci ba set tudduma la yàquluma la bul ma tuddu bul ma yaqal dama né ci yoon damay dem bu kenn tojal jotew ma ak yow dara nga tok di wax muy neex rek nga continuer di xalam fi ñepp mëna wax <laughs> ku neex nga teg micro boo ne der dama ne ñu ne la ñëpp déglu la ñëpp la ñuy déglu ndax Sénégal jokkoo maajoor jokkoo leer bee leen neex man kenn xamuma ci loolu mais nag il faut que tu arrêtes dama calme noppi di supporter yu bëri bis bu set nit yeewu gis lu mu war a mën a faj te du ko faj et eh, fi ma jaar bëri na te métti na mais kenn dégguma li may subiir bëri na te métti na mais kenn dégguma dama ne tekk waaye ñi la pousse ci man ñoom xam nañ ma coalition ngeen def nonu ñi la pousse ci man xam nañ ma bu baax duma xex duma xulo waye amna waaye am fulla ñi dem nak ba sen der yaq ñuy wut morom di wut luñ ma kole motif lolu du am parce que fi yalla rek mo fi nek waaw signé may may len ma ay cœur légui ma jéxal vidéo waye ñi may defal euh, ay tête de mort may len ma cœur sama gaay Mangi ngi gëreum ñëpp nak ma ngi gëreum ñëpp Eh, we love you emis eh, air man itam ñi bëgg dugg ci vidéo bi bari na de xawma ma may leen ma kër wow wow mam Anta mané yow kepp ci am faris nga zéro foot. Wow wow, merci da ngay tok ci sa rukku di def lu baax di wut lu baax toño kenn a <laughs> ah, jar na 100 milliards ma mayat la ko wala dena <laughs> na di jar na 100 milliards <laughs> nek ci lu baax di wax yu baax di fo di waaw kay Mouha Baro ah dama bëgg ngeen dolel ma de ndax fi dafa am ku dal ci sama kaw te arrêté gul te man jotewu ma ak dara dafa wax ne du nekkati candidat ma jël information bi relayé ko mu dem def ay affaire am jël ko di tok télé bu ne nga toog wëree ma fa ne man dama ko doon jëw man damay ut ay saga ki dal ba paré na deugël sama bop bu féké damay politique politique lan politique lan yow buma bëggé politique yow concerné wu la fuma ma bëgg a far ku mu neex nga far fu la neex mais man en tant que journaliste ak li may liggéey il nous est interdit ngay wut fooy farak fooy parparloo ñun liñ ñu jàngaloon ci école journalisme mooy que yow sa appartenance religieuse sax kenn waru koo xam parce que intéressé wul kenn man fu ma far intéressé wul kenn man bokkuma ci ñiy toog di def vidéo di dugg ci lu seen yoon nekkul na ma ko nit ñi seedeel ndax looloo am man dugguma li ci ci lu sama yoon nekkul waxuma ci politique utuma kumay ngagne kumay andal kumay bayil man sénégalais yépp la fi nekkal suma gisé luma wara wax waxuma dara lo xamantene duma teub di attaquer doomu adama duma togn duma togn kenn ndax tooñu la duma wax lu ñaaw duma def lu ñaaw mais fay am foy tollu fo xamantene buñ lay top di la heurtel di la heurtel il faut nga jema nak ben instant euh wax lolu rek la mbir mi démé waaw Yassine Diop waaw noble Sénégal nak bo nekké noble ni patt dañ lay deugaté jaar ci sa kaw ndax laal na mu noy mu laalat mu noy mu ne xaaral dedet du nonu nak man jigen la mère de famille la dama am njabot ña nga don tag ci plateau bi nan dañoo am seen yaay dafa bax seeni xarit lañu dama am yaay sama yaay genn aduna bu yagul makoy ñaanal suuf oyof ci koom ma am bàyyi nak muy dund ma dëkk daara jolof gi jolof jolof ci ndey ak ci yoyu sax amul solo parce que fii kenn ku nekk foo bokk taxul terewul nga am valeur doomu aadama li nekk ci moom yàllaa ko ci def ku ne am na lu ne ci yow lu mu deful ci moroomam mais nañu bàyyi toog di xas nit ak di attaquer nit ku la deful dara munoo génne preuve ne nii laa la def soo bëggee taqal nit wala nga bëgg ko tilimal rek inventer une histoire à dormir debout nit dangay am personalité am classe ngir lan la lañ la def ak lañ la fal ak lañ la jagleel Sénégal nag problème bu am mooy kuy wër man waruma bës utuma bës ndax bi ma fi toogee génnatuma ci télé bi pratiquement joxatuñ ma sama émission bu ma neexoon ma créer ay wax pour am buzz man du ma nitu buzz sama ruq laa toog na nit ñi wax rek te yàlla tax fàtte xaju fi maa ngi sama ruq toog ñàkk génn gi may ñi ma xañ sama samay droit li liñ ma frustré ak liñ may def yëpp taxu leen ma wax fi toj toj pour am buzz man du ma wax katu toj toj fu ma waxee ci site internet site bee ma woo invité ma woowu ma benn site naan la jël ma damaa toog sama ruq xam ne lu yàlla dogal mooy loolu bu ma neexoon ma ne man damaa nekk au sommet di liggéey sama liggéey jóge ci télé dem ci beneen tele kenn déggatuma naa créé buzz doxuma ci buzz doxuma ci loolu dama ne teg di liggéeyal jasporaa bi wax dëgg neex yàlla sonn ci ñoom nag amu ci kenn kuy génne xaalis di ma ko fay wala nga ma koy jox man maa mag loolu conteneeru ay saaga ki dàll yow la intéressé man intéressé wu ma ndax sama tànk yi la yore genn fi di doxi sama soxla bu ma bëggee génn jël sama taxi taxi lay jël daf ma déranger buma ma mané damay dem outil auto xamna fuñ koy outé xamna ni ñi def ba am ko sama dignité ak sama ngor dara duma ko taxa jaay man nek njolloor gi mbaba ak ma du ñoy sama mam. ndax xam nga problème bi moy lan moy bouté lu mu def lay xéñ jombalé na sama bop di jaay sama ngor nak ay saga ki dal nit ku nek nak li nek ci yow ngay wax man duma bobu façon mais nañu arrêté wax ju ñaaw baxul tuumaal gor baxul Sénégal fofu lañu tollu tax ku nek ragal ragal du jam guy man ragaluma la ragaluma sax ku dul yow xam nga kuma ragal yalla subhanahu wa taala jalla jallalo azal kamal buri buri borom asaman ak su borom kun fayakun am ay wajur am ay dom di responsable taxawaluma doxuma ci lu ñak fayda dew ma benn dekk dëkk fan am nu fa nekke fi nak ñepp xam nañ numu fi la tok ci sama dekk bi di sénégal ma bëgg ko lool ouf sama njabot uf sama yaay ba mu genn aduna may dund sama dund nekk ci sama jamm nekk ci sama ruq taxawaluma dewma fenn ken gisuma fenn ma ngi tok ci sama kër mëno sama der déedéet crédibilité bi nga wara am pour taxaw am res nekk responsable nekk élu war a uuf ñëpp war a wax lu baax yow kay su ma la defee lu la métti woo ma ne ma li ma def neexu ma mais loolu dafa amut yow yaa toog ne dootoo présenté wu ma jël loolu dugal ko nga ne lu tax bi nga ko waxee wax nga ma ko ci coulisse ci émission bi ma ne la ah pour temps man de wax dëgg yàlla am na koy wax naa ko jël soxna Bamba Ndiaye pourtant maa ngi jël mais xaw ma nu ñuy demul soxna bàmba bi nga ko waxee nga ne ma ba émission bi jeexee nga ne ma da nga def erreur mané la ban erreur la def nga ne ma da nga wax ne man mané dotuma dootuma présenté wu. ma la non man defuma erreur parce que j'ai vu des images dama yoré images yi dama sétane man bu may def émission ñu ma tay diw lañu invité damay dugg ci eh, euh, ki bi documenté wu. j'ai fait des recherches bima défé recherche ma gis benn émission bo xamante Italie lañ ko défé won nga tok né yow acte nga bu yàgg ne dootoo nga ne man non da nga waroon préciser mané la non ça va de soi c'est évident que man je ne parle pas des députés fii je parle des députés de la diaspora parce que man diaspora lay def donc mënuma wax ci député leneen loolu ça va de soi nga ne ma ah d'accord kon amul problème légui da ngay jël sa numéro sama numéro nga woo ma invité ma mané la d'accord amul problème su fekké né heurté na la dé ma ngi jéggalu ca yar gaa teggin nga la parce que damay jox ku nekk cër nga ne ma d'accord jëlal sama numéro nga woo ma man bima défé émission ba paré nago sec nago maa ngi koy nuyu di ziar ziyaar na ma message ne ma kontaan naa parce que amul dara lo xamné waxna ko wala ma xass ko ma ŋàññi ko député yi amul waxuma len dara lu ñaaw je je suis qui pour daan damay lo ay bilan du ma man du man may kan lo mo bilan dama ne j'ai juste posé une question lan moy rôle lu député de la diaspora man nak comme mënuma ci tontu ma dem euh, def ay recherches laaj nit collecter information peut-être xamone loolooy collecte de l'information ma collecte ko ci bir collecte de l'information bi ma gis ni yow yaane doto dootoo présenté wu man ma ñew jël wax jooju wax ko ndekete wax jooju mom mo indi coow li yow ya ko wax amna na ñu may seede fii ne ma elle a bel et bien dit que du présenté wu mi ngi si Insa euh, Cissé Fati parce qu'elle a compris elle va plus gagner en Italie ici man loolu sama yoon nekku ci bul ma ci dugal so bëggee dédire sa bopp bëgg na yaa ne woon doo présenté wu nga présenté waat utal beneen nagu sarax sama yaay jurul boobu doom seetal neneen nooy def je n'ai fait que li nga wax yow yaa ko wax ma waxaat ko loolu nag bu taxee nga dem toog di inventé naan dama lay jëw man maam ak jëw xool ma bu baax duma jëw du ma defkatu lu bon duma ma njëddu téer du ma madantaali fii laa dëkk Sénégal keroog nag toog nga ci plateau bi ba ngay jóg ne kii moo war a def diaspora ndax moo fa dëkk ku fa def dëkkul waroo koo def déedéet fu ma neexoon ma dëkk diaspora li fa xew yépp nag xam nañ ko su ma neexoon ma dem dëkki fu ma neex mais man Sénégal moo ma neex ndax Sénégal maa tout donné defu defal nañ ma lépp may commencé ci télévision en deux 2003 am ñu may critiquer sénégalais yëpp soutenir ma jóg taxaw parce que lu bees la woon ñooñu dama leen di delloo njukkal fii laa juddoo suuf sii yaroo fi màggee fi jàngee fi Sénégal defal ma lépp ñu bëgg ma lool gis ma ci tele bañ maa gis ci tele du tere ñu am fuñ ma teg ay nit di la ñaanal fonk la dangaa defee ne dangaa amee nit yow kese toog nga sax ci plateau bi ne kenn ku nekk ni nga mel noonu la sax ay réseaux sociaux di mel keroog la nga ma wax bari na nag waaye terewul <laughs> ma sourire sourire bi dawal professionnalisme am auteur ki doon réaliser émission bi sax dafa ma yónnee message ne ma professionnalisme bi ma wonee ñépp ne ma heureusement ba dugguloo ci jeu bi yi nga xam ne moom lañ la kàmmal ndax dangaa ñëw rek di ma attaqué ma maroon laa mën a tontu nag fi ma attaqué nag ndax nag ñëpp am làmmiñ ma am hauteur am respect pour ñi may seetaan quartier général ma bàyyi la nga wax lu la neex def lu la neex émission bi jeex nga wax ak man ba pare xëy dem toog ñu dékkal la sa micro ma dégg kuy xale yu jigéen yi nga xam ne da ngeen di bokk métier bi waaye du ñu soutenirante kenn ku ci nekk yaa ngi xool nit yàkkamti mu am euh, faxastalu wala mu am galgal ba nga jël yëf ba kontaan ci nañu arrêté nee naa leen célébrons nu vivant chaque jour ma wax ko nañuy waxante lu baax di ko yàkkante di defante lu baax yàlla sunu borom kontaan rawatina weeru koor bii nit mun nga ko xool apparence am déranger la loolu du moom yàlla sunu borom la ngay seet nan ngay def waxaguñu sax am ku nekk ci suuf naan kepp si caam la looy kepp si caam yow bu ñu ne woon kepp si caam de man de bu doon man la ñu tuddu sama sœur mu nekk ci animatrice wala journaliste damay taxaw soutenir ko waaye duma ko suuxal arrêté leen li ngeen di def lii ñépp ko mën voilà wax jaa ngi bëgg a bëri maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi euh, euh, euh, arrêté voilà ñii te seede yaa ngi elle a bien dit qu'elle va pas se présenter man nag je ne lui ai rien fait j'ai juste dit relayer information bi su ma paree léegi naa dugal vidéo bi mu ko doon waxee waaw loolu de laa wax waxuma fi leneen wax na ni député yi wax dëgg yalla amuñu ay moyens ba paré amuñu contenu waxuñu leen spécifiquement lan la wara def mané sénégalais da amna ci ñuy kaas né dañoo bayyi seen dëkk yi ñu leen falee ñëw fi nga xamné mom modi Sénégal lool la wax mais dama équilibrer information bi mais man du man may def bilan wala may décider mais damay relayer loolu moy sama liggéey dama relayer info parce que dama am sujet le rôle des députés de la diaspora ki ñi wax na ko sekk mom il a compris parce que yonne na ma message Eh, di féliciter liggéey bi nga xam ne def naa ko ba pare daa di ne ma eh, dinañ ci wax man ak moom xanaa man maa ko contacté gul ah nga yeewu suba teel rek kay dem toog di wax lu la neex di wax ay saaga ki dàll man damaa namm saaga ak dàll man maa mag je ne suis pas matérialiste matérialiste ma alalu àdduna yóbbuwuma fu ne dugg naa fa nag ci àdduna bi fu ne dem naa fa waaye fëkk te sama réew gënal lu ma am man bokuma ci complexe yi dem bitim rew nan dañ fay dekk ak ay li fi la dekk parce que li nga wax motax ma tontu la lolou toñuma ma kenn nga ñuma kenn mais da nga ne man dekkuma bitim rew kon waruma ci mëna wax li nga wax du dekk ak fi nouvelle technologie yi toll ma yoré sama tank bi dem fu ne ci aduna ba boba kenn la xam nga tok tay ne man waruma ci wax yow mëno la ma légitimer du yow ya may jox légitimité bi war parce que légitimité bi amna ko ba paré ndax wa diaspora bi ñoma ko jox ndax ñom ñoy gor yi nga xamne li ma leen di defal ñoom xam nañ ko mu tuuti mu bari ku ci am sa information am loo bëgg a jàllale wala nga am jàmbat wala lu ma sa xew rek taxaw naa ci ñoom ak ca moyen a ma am muy wax relayer information bi ndax man mënuma lenn awma ci benn pouvoir mais nag li ma mën maa ngi koy def na ma ko mënee même bu fekkee ne matalewuma lépp duma ma tëb nag di toog ci plateau di def émission te defuma ay recherche wala wootew ma wala laajtew ma damaa woote ba laajte ñu wax ma loolu kon su fekke ne lolou mo la nakari nga réglé ko nenen waye do dem tok ci télé di jël nit ki bëgg ko dénigrer di jël yu yu sew di ko ko takal nan dañ la ko dagal di la ko jox yalla ko yakala ko dagal nee len ci pot wa lolou la wax donc sama gaay ma ngi len di gëreum képp ko xam ne doon xol euh, euh, live bi c'était juste une petite euh, benn euh, mise au point bu ndaw la donc euh, voilà qui mingi wax ñi di participer yëpp Al Amina j'ai suivi l'émission tu as été très grande macha Sénégal mo tollu fofu xamnañ ni légui gor <laughs> yépp la jot deug la doyna war gor yépp lañuy la jot bo togué sa ruq ne doo wax itam dafa am lo xamné ne bu joté foog nga léral ko man jëwuma kenn ay sac yitéluma ay bagages yitéluma je ne suis pas matérialiste xeyna dag ma lekuma dërëmu kenn damay liggey ñu may fay nak sama salaire fin du mois mbaa baak ma ko doy sama mam ngay nekk njolloor gu cousin wa Alburi nyaay yoy boo ma xamul duma kuy nek nan damay jaay sama ngor man duma jaay sama ngor duma jaay sama dignité bu ma ko don jaay 4x4 laay yore fi garé ko di dawal ah 4x4 nag sama jëkkeur sax yëkëti na 4x4 may mako waye bamu pané yépp la tek fi di dox ak sama tànk buma don kenen ma complexé ah Nan duma jël tak taxi lay jël man may kan ñewal fi ma dëkk nga laacc ma fi ñewal fi ma dëkk nga laacc ma fi man dama naturel luma wax dëgg la ci man duma ma tricher wax luma gëmul te duma togn waye dafa jotone nak ma wax la nga xam wax ma genn wax arrêtel di wax lo ne amut loolu ñepp ko comédie gu di def affaireu ay comédie di xass nit ñi di ci naxassale non yow yaa ne dootoo présenté boo bëggee présenté waat demal outil benen yoon bo jaar buma paré légui dina dinaa leen dugalal li nga xamné mom modi euh di euh, vidéo bi di jéggalu ñëpp nak waaw dama ne woon def communication ku mëna a partager nak nga partager ma pour nak wax ji egg Famu eggon ndax fa togon diko di wax wona naa leen pour am droit de réponse <laughs> mais bëgguñu lolu apparemment